ndaw ñaa lañ ci fekk ñun Amadou la ñu bëgg ndeysaan ndeysaan waaw ñoo koy déggandoo ndeysaan ñoo koy déggandoo militant militant yi nee nañ ñu bëgg laay déggal ñu lay nuyu waaw waaw ñu lay fay. foo ba foo bàyyee ko. bàyyi bàyyi Sacré-Cœur. waaw ñu gis nga ànd ak waa coalition benn bokk yaakaar président Amadou Ba élection yi ñu gis tendance yi gis ne waaw Bassirou Diomaye Faye nee nañ élection yi ñoo ko gagné te yéen nee ngeen ne yéen bañ loolu élection yi yéen a ko gagné looy wax ci loolu. du dëgg ñu ñoo ko gagné waaw waaw. waaw nee nañ du dëgg ñoo ko gagné kon ñoo ko dégg noonu. ndoy ndoy ndoy xale li ñu wéy nii lan la. waa Jomay lii la ñuy def ñii lii la ñuy def ñun fan ñu jëm ñun ndaw yi. laay nañ ko waxtaanee. waa lii la. moo kese lii la. nañ ko nañ ko waxtaanee. ndeysaan laaj nañ nañ ko waxtaanee. Jomay Faye moo gagné Amadou Ba moo gagné maa ngi seen sama benn confrère dama koy jël laaj ko élection yi confrère maa lay non man daal li ma mën a wax mooy li mën a wax mooy ma ne li ma mën a wax mooy Sénégal ñu ñëpp a ko bokk mbiri xeeñul neex Sénégal mag ñi dañu koo bàyyil amuñu droit puso bi réer suñu nit kenn ku ci ne tey fii boo xoolee kenn ku ci ne li mu xëccu la fàtte nañu suñu njaboot fase fàtte nañu yi njaboot yi war a ñëw amuñu droit puso bi réesuñu fi ñu nekk ni kenn ku ci ne da ngay xëcc sa mbir te Sénégal moo ñu njaboote nag. en tant que en tant que journaliste yi xam ne moo jot a génn. waaw bon on ne peut pas aller on ne peut pas danser beaucoup plus am na lu muy doxee mais tendance yi tendance yu lourde la. boo dëgg yàlla yoo xam ne mën naa balancer mbir mi. mais nañ ci tey parce que élection la am na ay instance yu habilité pour prononcer wu. bon ñu gis ne certains des candidats euh, euh, posté nañ ñuy félicité la la la candidature de Bassirou Diomaye Faye. ñoom dañoo gis ne peut-être bon seen appréciation la kenn ku ci ne libre nga def mais du ñoom ñoo dogal mbir mi bi ñu jaaxee bi président euh, reporter élection yi. conseil constitutionnel moo nekkoon dernier garant bi ma àddoo ñëpp dañoo rangé wu comme yaakaar naa suñu dëkk bi am na soubassement yoo xamante ne dinañu permettre ñu bañ a diig waaye li ci mën a nekk mooy li ma la wax rek muy fii li xawoon ci mbedd mi ak li xew fii yëpp kenn ku ci ne sa intérêt ngay xool fu mu toll nii moo ñu njaboote amuñu droit pour subir suñu loxo. ok merci beaucoup. voilà ñoo ko dégg loolu suñu confrère bi. Ah. baaful bi daf ñoo xaw a sori rek mais déglu la en deux na ma koy joxaatal internet yi looyu bon mbokk yi ah, ñu tànqilu déglu Amadou Ba le président Amadou Ba mooy wax ak euh, militants et yi waaye ma koy jottali nee naa la son bi daf maa nee na merci pour engagement bi ndaw yi def nee na merci tamit pour détermination bi defal naa samay son jor baaxul ndaysaan mhm. nee na mi ngi remercier euh, peuple sénégalais lambda bi nee na pour cette euh, grande mobilisation bi ndaw def nee na remercier la dafay ñëwaat. nee na euh, pour jox leen appréciation définitive nee na demee euh, Ndoye mbir dafay ñëwaat pour jox ndaw yi appréciation définitive Ndoye. voilà Amadou Ba dañ ko doon xaar tey mu ñëw def benn déclaration mais bon ñëw na il est de parler nee na il va parler demain vers midi pour xool appréciation par rapport aux élections de 2024 24 euh, mars voilà. dafa mel ni sànq li nga ma loolu la wax ah. nee na bëggut a artu ci dara bëggut a wax dara dafa bëgg a xaar ba lépp dajaloo incha allahu mu doog joxe dernier kàddoom loolu la Amadou Ba waxagum pour ñu ñuy seetaan rek euh, pour ñu mën gën a xam li kàddu yi Amadou Ba jot a yëkkati voilà laay noonu la demee nee na day taaxirlu day taaxirlu ba suba incha allah mu am ay appréciation yu leer yu clair incha allah uh-huh.

Uh-huh. Respectons les lois de la République. Uh-huh. Uh-huh. Ndoye Athia. voilà ñu ngi koy dégg nee ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne votal nañ ko te ñu respecté urne li mu génnee échange loolu lay programme di wax ni voilà. seen mobilisation di rafetlu seen engagement xam ngeen ni war nañu sant yàlla ay élection yoo xam ni ñun ñëpp dañ ci amoon njàqare wane ngeen seen engagement le peuple sénégalais dans son ensemble a fait preuve de maturité voté nañ ci jàmm. am nañu commencé nañu am ay résultats ñun nag am nañu ay dispositif de remontée politique ñu ngi ciy liggéey am nañ ci lu bari mais ku nga xam xam ni je suis respecté du droit ku nga xam xam ni je suis respectueux de la République et de ses institutions fii ak benn waxtu ñaari waxtu. maturité yi voté leen ci jàmm am na commencé nañu ay résultats ñun nag am nañu un dispositif de remontée politique ñu publique et benn waxtu ñaari waxtu liggéey bi dina pare li gën nag mooy ma jox leen rendez suba ci 11h au plus tard à midi dinaa ñëw fii jàkkaarloog yéen wax téye ba suba ci waxtu ci suba ci bëccëg bi ci midi au plus tard dina leen wax lii nga xam ni moom moo tukkee ci urne yi muy muy loo xamante ni dinañ doon sama position. maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di ñu déglu le président Amadou Ba mu pro mu wax ak sénégalais yi wax ak militant militante Benno Bokk Yaakaar yi ñu leen